lu naa samay nag ak samay jur gu duuf lépp sotti na ñëw leen ci reer yi waaye ba tey wuyuwuñu ko ñu dem kenn ka ca toolam kenn ka jaayaat ni ña ca des jàpp surga ya toroxal leen rey leen noonu buur mer daldi yónni ay xarekatam ngir ñu rey boomkat yooyu le lakk seen dëkk ci kaw loolu mu ne surga ya réeri ceet gi noppi na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 buur ne ko sama waay naka nga dugge fii te amuloo mbubbum céet waa ji ne miig noona buur ba ne ay surgaam yeew ko ci tànk yi ak ci loxo yi sànni ko ci biti ci lëndëm gi foofa des na fa jooy te yeeyu ndaxte ñi ñu woo bare nañu waaye ñi ñu tànn barewul booba farisiyen yi dem gisee ba xam lu ñu war a def ngir fiir yeesu ci waxam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 wër leen ma poset bi ñuy feye galak ñu daldi ko jox nag benn posetu denariyon yéesu ne leen kan ci def nataalam ak turam ñu tontu ko sesaar noonu mu ne leen jox leen nag sesaar li sesaar moom te jox yàlla li yàlla moom bi nga xamee ni dégg nañu loolu ñu waaru bàyyi ko daldi dem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 te lu jëm ci ndekkiteel ñi dee xanaa mosuleen a jàng la yàlla waxoon ne maay yàllaay ibrahima ak yàllaay isaaxa ak yàllaay yanqooba li ciy génn mooy nekku yàllaay ñi dee waaye yàllaay ñiy dund la bi nga xamee ni mbooloo ma dégg nañu loolu ñu waaru ndax li mu jàngale gannaaw gi pharisiens yi yëg nañu ne yey na saducéen ya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 na nga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ñaari ndigal yooyu tënk nañu yoonu musaa wépp moom ak wax yonent yi bi farisiyen yi dajee nag yéesu laaj leen lu ngeen xalaat ci almasi bi kan la nekk sa tëm ñu tontu ko daawuda noonu yéesu ne leen lu tax nag daawuda bi muy wax ci kàttanu xelu yàlla mi di ko wooye borom bi ne borom bi wax na sama boroom toogal ci sama ndejoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam ginnaaw daawuda nag wooye na ko boroom bi nu muy nekke sëtam ci kaw loolu kenn mënu ko tontu genn kàddu te li dale ci bés booba kenn ñimeetu ko laaj dara